alxamis fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës kàddu ya Mimi Touré yëkkati jëmale ci possibilité wu ñetteeli mandat bu njiitu réew mi Macky Sall ak la ca constitution bi wax koppar gu takku gañu xayma ci 18 millions 480 mille 900 di wax ni moom la ma Samoura yoreel ex Sénégal ci woto bu ñu ko luwe woon boobu ba tey fayul bor bi daañu leen ci ñëwal daa ñu leen dikkal ci tolluwaayu dossier gañeel coowal yamba ak viol ga ñuy toppee mbër mi di Saalum Saalum ñu di ko waxtaanee bés yi yëpp dinañu leen faram fàcceel ci digg xibaar yi la waa Jamra di toppee Cheikh Ahmed Cissé boo muy tulee nag danañu dem ci yoon tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taxilu as lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci sunu gaal 24 dal leen jàmm ci xibaar yi. AIDS Sénégal ga homme d'affaires bi di MSN jiite dañu joxoon secrétaire généralu FIFA gi di Fatma Samoura benn woto ba su ñaar fukki fan ci weeru décembre atum 2020 la wàcc ci l'aéroport international Blaise Diagne dugg ci woto marque Nissan Patrol immatriculé AA 956 CR woto ba ña ngi ko luwee woon ca société AIDS location baa nga jeex a ba su juróom-ñaari fan ci weeru février waaye ba démb ci àllarba gi AIDS mënuñoo jot ci seen facture 18 millions 480 mille 900 nee nañu am na benn responsable fédération bu football bu porté woon garant ngir fay bor bi bu nu sukkandikoo ci ay xibaari libération et saisir na ay avocat ngir ñu yónnee concerné yi ay sommation interpellative fas nañu yéene itam porté leen plainte ex capitaine Oumar Touré dañu ko seppi woon ci ay rang yi gendarmerie dal koy rétrogradé simple soldat bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 2021 dafa saisiroon nag cour suprême ngir attaqué décret wu njiitu réew mi Macky Sall niki recours pour excès de pouvoir ca cour suprême ma ko dugaloon fukki fan ñett ci weeru août chambre administrative de la plus haute juridiction dana jël ndogal ci google recours ba su ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre gi ñu nekk ni ko libération di xamle bu 10 heures jotee le juge Abdoulaye Ndiaye di addu ci google dossier Jamra saisir na procureur brigade des mœurs ak division de la cybercriminalité ngir ñu jël ndogal ci kii di Cheikh Ahmed Cissé jéem nañu ko delloo si yamale ko ci wax yu desee teggine yamuy yëkkati waaye mu mel ne rek Cheikh Ahmed Cissé dafa gën a ndëgër laayu ngir gën a dëggal boppam ci mbirum perversité sexuelle am yooyu dem na nag ba di naan dañu war di séddale ay capote anglaise ci jàkka yi ba tax na rek Cheikh Ahmed Cissé faaw nguur gi jug ci moom laata leneen di ci toftani bu newuloon vigilance su benn caissière Arona Timbo mi dafa naroon a def ab dépôt un million deux cent au faux billet ca agence bu crédit mutuel du Sénégal ba nekk Kédougou euh, ca banque ba la ñu ko jàppee jébbal ko élément yu commissariat central lu Kédougou l'enquête ba di wane ni Arona Timbo ci benn burkinabé la jëlee yooyu les faux billets ginnaaw l'enquête ga ca ndawi commissaire Balla Fali amal ci la ñu ko wanaleeg procureur de la république bu tribunal de grande instance su Kédougou ña nga di ko toppee détention ak mise en circulation de faux billets de banque ni ko source yi xamle soxna si ñu fësalul turam toll ci ñeent fukki at ñett dafa divorcé dem dëkk ci benn kër gu ñuy tabax te ab maçon aaloon ko ko guddik ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2020 ay boori 3 heures du matin benn waay dugg ci néeg bi ngir violer ndaw si ba noppi yóbbu téléphone am soxna si nee na da doon nelaw daal di sentir ku dugg ci néeg bi mu tëb seen takkandeer bi noonu rek waa ja tëb ci kawam xoj ko teg tànkam ci dënnam jël la mu sàngoo woon ñuux lenn li ci gémmiñam ginnaaw loolu nag mu jël corde xooj ko ba noppi rek ni ko dinaa la rey ba muy dal koy sàkku ci la ko tànkam laal téléphone bi ci la ko xàmmeewe ndaw si ne na nag waa du kenn ku dul gardien wu dëkkandoom bi parquet ba biral na ci waa ji fukki atu kaso ko juróom juróom-ñaari fan ci weeru décembre gi di ñëw la ñuy jël ndogal ci moom mbër mii di saalum saalum ak juróom yi nit yu ñuy wax ni ay complice am lañu démb ci ba gi la ñu am retour de parquet saalum saalum ña ngi ko jàppoon ñeel trafic de drogue viol ak coups et blessures volontaires ñeneen ña ña nga di leen toppee complicité ak détention ak de drogue libération mi joxe woon xibaar wi doon xam ne ni gu nekk ñaar fukki at ak ñeent gi daa demoon kër Saalum Saalum doon jënd cocaïne mu fay 25000 mbër mi ni ko 90000 lay jar mbër mi proposé ko ngir ñu am yu ñu fa fekkoon ñuy tox yàmba. Idda moo di singalum yaa bu bees bi mu génnee gannaaw ba mu tàggooweeg No Face ma ne woon borom këram ci way googu nag ay sata mi ñu gën a xam ci Mia Guissé da cay fësal métit ga mu dund ci néegu sëyam mu di lu dugg ci xolu sénégalais yëpp ñeneen ñi sax jàppal ci ab mer kii di Nofees borom këram nga woon nag génn na xamle ni ci ay mbind ni moom kenn du ko jam naa ni teg na ci ni rek tontu Idda mu ngi ñëw tey jile sax la joxoon ndaje ay fansam bu 16h jotee ca émission faram fàcce Mimi Touré àdduna ca ci mbirum ñetteeli mandaawu njiitu réew mi Macky Sall ex premier ministre gi nag la mu gis moo di constitution bi dafa leer ci wàllu mouvance présidentielle gi yëpp garantiroon sénégalais yi ne euh, kenn du fi def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Mimi Touré nag nee na sept ans boo ci euh, cinq ans doole ko euh, ñaari mandat lay doon te constitution bi waxul ñaari mandat wu cinq ans yu toppalante ba tax na mu ni rek nañu appliqué la ñu waxoon sénégalais yi bu ko defee manifestation du am kenn du ca blessé ba sax bakkan di ca root Thiès fixé na ay njëgam ñeel dund gu cher gi ñu wàññi woon loolee a nga yemook fukki produit consommation bu Thiès fixé prix euh, prix yu bees yooyu nag tàmbali nañu ko jëfee ni ki gaaw gi weesu euh, ceeb ordinaire bi kilo baa ngi jar léegi 330 litre diwlin gi jar 1220 euh, kilo suukar 580 meew mi itam kilo bi dem na 2800 bétail baa ngi jar 10 250 sac bu ne aliment de volaille sac baa ngi yem ak 20 250 lu ñeel yàpp nag léegi 3800 la ñu koy wecceekoo ginaar 3000 njëgu neen tablette baa ngi jar 2800 benn bi di jar ñaar fukk soble importé bi kilo 550 pomme de terre importé 500 carotte bi 600 fer 400 diamètre 6 bi 635000 lay jar tonne bu ne diamètre 8 bi di jar 32535 tonne bu ci nekk fer 500 importé diamètre 8 ba 32 695000 lay jar fer local diamètre 8 ba 32 655000 weeru février atum 2021 cellule antidrogue bu port autonome Abidjan dafa amaloon ab saisie wu cocaïne bu am solo bu yemook 48 sac bu ci ne rek defoon 22 blogu cocaïne lépp yemook ci xayma 25 milliards ci sunu koppar ay weer lañu ci tekk yëf ya am virement gu doy waar commandant wu gendarmerie ga ñu dénk cellule anti drogue bi alert l'enquêteur ivoirien yi suspecté ni rek moo jël xaaju cocaïne ga ñu saisiroon ci njeexantal weeru ut gi lañu ko jàpp placé ko en détention provisoire ca maison ñu jàppoon gendarme yu bari juge d'instruction bi déglu woon leen fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ña nga di ca tudd itam beneen gendarme guddi liggéey ca quartier des affaires bu plateau ca Abidjan Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne barki a taxaw ko renvoyé la ko yóbboo ci yoon mi ngi lalu ci ay tuuma yu mu tegoon ci ndoddi Souleymane Teliko a daf ne woon rek Souleymane Teliko juge la woon ca chambre africaine extraordinaire ngir juger Hissène Habré africaine ñoo ko épinglé woon ci benn rapport officiel yu ñu ni rek dafa jotoon ay frais de mission ngi dem Tchad te booba gouvernement tchadien gi jëloon na ko en charge ba noppi faaw nag mu indi ay firnde ci yooyu la tuuma moom ma Madiambal Diagne commission d'instruction bu cour suprême dafa biro lapp ordonnance su non-lieu définitive ci coow loolu dox diggante Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi équipe nationale féminine de handball bu Sénégal qualifié na ci demi-finale vingt-cinquième édition gi gaynde yu jigéen du duma nañu Égypte ñaar fukki poñ ak benn ci fukki poñ ak juróom-ñeent ca seen jongante ba ci simili yu njëkk ya lañu leen mënee gannaaw défense gu am solo gu ñu def ba ñuy pause nag ña ngi leen mënee ñaari poñ dong ci reprise ba Lyon yi desandi ci pression ba ñu teg égyptienne yi ñu mujj jeexalee 21 19 niki noonu nag Sénégal qualifié ci demi-finale lu mondial Papa Sow di béer juróom-benni fan ci weeru novembre Siteu dafa biraloon ni rek daa bëgg a dajeek Lac de Guiers njiital écurie Waalo gi nag sekk na waxtaan ak sunu naataango yu làmb yu sunu làmb xamal leen ni rek nangu na dajeek moom Lac de Guiers 2 nag nee na dafa am estime ci Siteu dafa yëngu ci social te dafa jege lool ndaw ñi rawatina ñi si banlieue bi dolli na ci ne rek na muy communiquer da koo neex teg si dafa yaru xam na nu muy jaa jaayee ay combat lépp ci yar la koy